président de la république kontaanuloo woon ci yenn choix yi mu doon def ak ni nga xam ne noonu la doon gérer Amadou Ba moom dama ko jëlale Parcelles Assainies daanaka dóorante kurfañ rek ngeen deful. jamais <coughs> jamais euh, le président Macky Sall son excellence sax laa koy laa koy wax parce que euh, dafa dafa excellent makisal Sall euh, mësuma am ak moom wérante bu tax ma génni wax leneen. lu dul fa ma ca wax ak moom fa mu yem fa yem bu tànnee nit nag ci problème mu élection trois niveaux de choix élection locale wala territoriale comme niñ koy tuddee ci ci euh, euh, anam yi léegi wala élection législative wala élection présidentielle élection locale moom kooku mën nga bu tànnee nit nga wax ko sa xalaat surtout bu dee def la oo ne la boole naa la ci ñi ma bëgg ngeen ngeen ngeen wax ma seeni xalaat walla ñu bokk tànn ay ay ay njiit pour réew mi fam fam ma ca oowe euh, fu ci ne danaa ko wax ne diw mee diw mii nga tànn day yaakaar naa ne waruta waruta mën a jox résultat bu baax loolu wax na dama ko koy wax ci anam yoo xam ne par respect mais par conviction te fi ma ko ko wax yépp ñooñu ci élection locale yi passé fépp fu ma ko waxoon ne am naa ay réserve ci diw euh, amuñu fa amuñu fa victoire loolu yàlla may na ma ko mhm. donc leneen li moo di ne euh, Amadou Ba président le premier ministre Amadou Ba le président Macky Sall moo ñu oo ñun ñaar invité ñu añ ñu añ ba pare mu ne ma dama bëgg Amadou Ba mii euh, di ministre Euh, des finances mu ñëw Parcelles Assainies euh, jàppale ma jàppale la pour ngeen ànd liggéey ensemble ma ne ko waaw à une seule condition président d'accord naa mais bu ñëwee na xam ne parti la fa fekk. mu wu. déedéet du wu na xam ne parti la fa fekk mu liggéey ak parti bi parce que ña fa nekk di liggéey jiite APR yaakaar di ci def ba fii ñu toll. il faut que mu ànd ak ñoom euh, dans le même partie en ce qui me concerne moo ma gën a féete ndaw mën naa e-, effacé wu jiital ko parce que man liggéey bi li ma ci bëgg rek mooy satisfaction population sénégalaise euh, du pour que man may jiite toujours donc loolu la waxante mais yàlla def na ba ñu demee ma ñu def meeting ma présenté ko population Parcelles Assainies ne leen nag nañ ko protéger nañ ko protéger mais euh, au fir et à mesure li ma koy wax yëpp def ci tenir en compte moom Amadou Ba musu musuta am contradiction sama diggante ak moom. déet waay monsieur le ministre. déedéet musuta am musul am depuis bu ñëwee Parcelles ak tey lépp lu ma ko wax. bu xool na ko xam ne lii njëriñu parti bi la njëriñu euh, président Macky Sall la njëriñu Sénégal la foofu mosuñu fee mësuñu am euh, réeroo ci suñu biir fenn rek la defee loo xamante ni bam ko defee euh, waxtaan si ak président Macky Sall moo di bi mu waxee ne bëggut a jiite du pour nekk maire parcelle def koy bàyyil le maire Moussa Sy man d'accorduma woon et puis euh, voilà au dernier moment et man waxoon naa ne président Macky Sall bi mun tànnee ne Moussa mooy nekk suñu candidat nee naa ko man Amadou Ba moom laa jàpp ne bu ko jiitalee moom dana gagné mairie bi mais parce que Sénégal moom ku nekk maire rek loo baax baax baax en général bon parce que maire yi dañ koy gise ne daanaka état la alors que moyens yi mu yore bokkut ak moyen état donc loolu ak comportement yi ak yëpp nit ñi ak jeunesse bi euh, des fois nga am ay conviction ne kii c'est pas le meilleur candidat du moment alors mais mosuma am ak moom <clears throat> d'accord alors euh, monsieur le ministre d'État donc loolu la monsieur le ministre d'État Amadou Ba est un monsieur le ministre d'État aujourd'hui un monsieur le